Jomaay gëmul sëñ Tuubaa gëmul Alaaji Malik képp ku gëm waaye Jomaay na doon dëmm na doon dëmm di lekke xam nga lii ma téye kaamil la du yaa ngi koy gisal sa bopp maa ngi wax billaahi wallaahi tallaahi jamono bii kenn gën a jekk ci doon président ku mooy Amadou Ba te buñ demee élection premier tour lay jàll gis nga Amadou Ba ku ko fi votel man maa lay nokk Bonjour c'est qui ça. déglu la jàmm la. chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, y a de nouveaux dossiers. ok gars yi bala ñoo commencé dama leen fàttali rek ngeen like vidéo bi vidéo bi yomb naa like quoi lu simple la loo xam ne dinañ ci jàppale bu baax a baax lu ndaw la yow yi nga xam ne yaay seetaan actuellement mais likeal vidéo bi. parce que am na ñoo xamante ni da ngeen fàtte like mais ñeneen ñeneen duñ like ñu teg ko fan <laughs> kon boog likeal vidéo bi yow ngay lu simple la moo nekk nañ suuf boo paree nag seetaan bu la neexee après nga daal di partager c'est simple. dëgg du romb nopp. ok gars ba tey maa ngi ànd ak Serigne Saliou Mbacke borom jurul ku yàgg seetaan samay vidéo yaa ngaa gis ma leen koy présenté yàlla dëng xam-xam loolu nag macha ok Serigne Saliou Mbacke borom jurul présenté waat ak garab gi gars yi mën a xam njariñ bi mooy yi Mhm. képp koo xam ne jël na ko incha allahu rabbi dana ci gis résultat te garab gi boo koy commencé jël di ci gis résultat dëgg fukki jàngoro ak juróom muy ndoxam siti mhm. hémorroïde mhm. ballonnement bëdi lëndëm biir buy metti tànk yu xar estomac insomnie sinusite éjaculation précoce l'impuissance sexuelle loolu da koy dindi ba mu jeex ak jigéen gi nga xam ne day am perte balance ak règles douloureuses da faj ba mu jeex tàkk ci sa yaram macha allah kon boog gars yi ñoo ko déggandoo garab gi ñu naan borom njurul moo nekk noonu képp koo xam ne bëgg ci gaawal contact yi numéro téléphone yi defal ci suuf euh, cabinet Dakar 77 la 199 93 yow mi nekk Mbour wooteel ci 76 611 33 62 yow mi nekk Touba mën nga woote ci 78 578 68 40 kon boog gaaw leen gaaw ngeen contacté Serigne Saliou Mbacke borom njubul a am ci la képp ko am na aussi bu nga affaire gën laa leer gaaw nga abonné ci chaîne boobu ñu naan borom njubul TV dëgg du rombi nopp <laughs> gaay gars yi nag ku ne xam ne ne actuellement benn actualité képp rek dong moo am ci dëkk bi ñu naan ko élection yi élection yi rek mooy actualité guddiñ toll nii moo campagne yi moom nii mi ngi neex bu baax a baax a baax te mi ngi avancé li des ci élection yi nag bëriwul mën naa ne 4 jours la boo ko xaymaa ba tax na gars yi seen bët ngeen xool bu baax parce que Sénégal dafa war a avancé maanaam ci guddiñ toll nii dañ cee war a génn nekk yeneen loxo yu bees maanaam jot na Sénégal nekk yeneen loxo yu bees quoi ba tax na gars xool leen bu baax bi ngeen voteel ko bu baax bi moom ñëpp xam na ko moom xam naa ne moom voteel leen bu baax bi ngir Sénégal jëm kanam dëgg du rombi nopp God <laughs> <laughs> <laughs> No jazz jazz fi nga dal baaxul déet déet déet jazz gas baaxul. waa yii béykat bi béykat dugub bi borom béykat dugub bi. déedéet rek bu naan maa wax. borom béykat dugub bi. idée gi nii ba tey xëddul de ba tey <laughs> président d'habitude lan ngay ndogoo wala looy xëddee. beñ a dugub. Eh, waay wan. kañ nga gëj lekk beñ dugub. xaw naa yàgg. ah waaw xaw naa yàgg. Ah. pourquoi beñ a dugub parce que beñ a dugub apparemment am na ku ko moom. non dañ ma koo jiiñ. ah waaye du mais jotuma ko faa ñam sax. <laughs> Ousmane Sonko laay wax li des sa dund dootoo mën a seede lu wér ndax dañ laa tëj condamné la ci fen ak fenal nit. yow sa kàddu mënatul dëgër ci pénc mi kenn mënatu la woo témoin tribunal boo ñëwee témoin tribunal li ñu lay njëkk laaj ndax sëñ bi yow est-ce que mas nañ la condamné nga ne waa lan lañ la condamné woon nga ne woy dama fenaloon nit jeex na ay taxal na le sa kàddu mënatul dëgër Sénégal dof yi ñoo la topp c'est des moutons qui sont derrière toi demeewu fa noonu bëgg a jël ñoom Poutine nag Macron ak leen ci kaw naan non imaginer leen yi ñëw taxaw ñoom non kon dañuy rus bu ko yàlla tuddee ba ñu egg ca ku ci ruus sa affaire la sa complexe bopp la. man sénégalais yi laay waxal borom nit ñi ñi ñiy réfléchir ñi nga xamante ni Sénégal ñor na leen ba seen en du yóbbu du leen yóbbu ci ñuy jël ku mel ni Diomaye Faye naan dañ koy jox suñu réew. Lat Diop fam lu mu war a xam ñun yoruñu candidat boo xam ne moom mburu mu fanaan yem maanaam candidat bu daa magat ba lax Amadou Ba magat la def 61 la judd mag paa bu nga jël ko peinture ko ne dang koy jaay nit ñi ba di saboté candidat wu jaamur na ko parce que man ah, man alat Diop dafa am lu ma bu ko wax bu ko bu ko man barke sëñ Touba Mbacke ma wateel Amadou Ba barke seigne touba nako def ma wax li ma koy wax ni na jël amadou ba bu mu ñuulal pendant une semaine rek mu génné ko ñu xol ko nan lay mel seigne bi dama lay wax imaginer rek joe biden taxaw putin taxaw gaay macron taxaw sa way ñew ñu ne ki moy représenter sénégal waaw loolu du sax. moom fa mu taxawoon boo yamu dajale woon mobiliser leen doon leen wax loolu. ba mu waxee ba pare xam naa li riposteloo booy yi sax mooy waxi kesew kesew waxu kaña yi fa doon wax. Mm-hmm. et moi je l'avais vu mu sol benn jalaaba bu weex. Mm-hmm. mais je l'ai vu avec des seins. Mm-hmm. sérieusement jalaabe baa ngi collé ci yaram na sa waay góor am ay sidit am ay kini ñu xamni mais yow go go xamanteni ni yaa ngi physique jambu alors que yow batar bataga quand même faut arrêter. <laughs> Jumaay gëmul seigne touba gëmul Alaaji Malik kep ku. waaye Jumaay na doon dëmm na doon dëmm di lekke ay way na gëm ay garab na gëm ay melentane na gëm ay neefere ñun mom lañuy voter ba bari di gëna bëgg seigne touba di gëna bëgg mom Alaaji Malik cette affaire de cette année gën leen ci. xam nga li ma tiyé kaamil la du yang koy gisal sa bop maa ngi wax billaahi wallaahi tallaahi jamono bii kenn gën te jekk ci doon président ku mooy amadu Ba. yéen Amadou Ba simple fonctionnaire yor ay milliards milliards te ku nekk xam ne nekk fonctionnaire maywul milliards yooyu mais nga ne sama yoon nekk si man moom laay votel te buñ demee élection premier tour lay jàll. maanaam yow ñu tegal la sàcc sàcc ne la kii sàcc la te ku nekk xam ne sàcc moom boo ko joxee sa réew mooy yàqu nga mais nga ne sama fou moom laay jox réew te képp ko am yóbbante buy dem pale jox ko Amadou gis nga Amadou Ba kuko fi votel man ma lay nok Amadou Ba kuko fi votel man ma lay nok mbamu haram yeen mbamu haram sa dafa euf ci yeen golo haram yi. wax ji ma wax nak su fekke suma bakan kep la ko tek yal jël suma bakan bala ñetti fan. ngi wax billahi wallahi tallahi jamono bi ken gënta jek ci don president ku moy Amadou Ba. te buñ démé élection premier tour lay jall te kep ko am yobante buy dem pale jox ko Amadou Ba wax ji ma wax nak su fekke suma bakkan kep la ko tek yàlla na la jël suma bakkan bala ñetti fan. yow dofu ñeen fukk gudd gu mankul benn beccëk nga yow. putin mo wëra joom rek sa nañu benn atomique rew mi nekk dom ñepp noppalu. c'est dommage c'est t t t t ci Ahmed ci mii kum yàpp yow mën nga atay rek ngeen da ngay furale ben tank quoi. mom dal neena na ba léegi mi bëgg a ci bop sénégalais en tant que kamil alcorane yow da nga xam ñuy xey suba ba yëkëti di wat naan Amadou bobu démé élection premier tour mu gañe ah kii moo yàlla te ñeme suñu borom waay